patriote ser patriote sama mbokki diaspora bi ñun waa diaspora bi maa ngi leen ziare bu baax leen wax ne seen jëf ji xam nga lan moo tax mu gën maa neex daf ma neex parce que dafa am benn waay boo xam ne bu naan tooy jaas <laughs> da ngeen ko duma te seen loxo laalu ko parce que dafa am lu mu leen daf leen fay waxoon 3F trois f yi nag da ko boole woon ak wax bu arrogant ak ñàkk intelligent muy hé yéen waa diaspora laay waxal weesuwu leen 4 pour cent falu leen folliwu leen yéen waa diaspora ngeen tontu ko ne ko c'est faux waxoo dëgg dañuy fal dañuy folli dañuy financé <laughs> xanaa yéen a wóor <laughs> te to to to bi mu waxee loolu ba pare lu ci gën a xorom dama koo gis Italie dama ko gis Italie moom ma ne ko moom ñi fëlut folliwul loo ca wuti di campagne <laughs> barke alquranu karim diaspora dañee na duma tooy jaas te seen loxo laalu ko ngaaka la xamul politique xamul nu ñuy politique sëñ bi diaspora ku leen xamul rek moo leen yàpp ku leen xamul rek moo leen yàpp moo tax yàqal na xalifa loo xamante si nii bala koo fay gone boo ànd ak moom da nga koy yar